كامل بيما ربي كما قلت انه منافق كما قلت عليكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وني فاستي سي كن دي لين ولا خني نيو في لي جيم مو دي نياك كو ني مي تيري بينا واخ ني يولن كي دوت نيو غناو سيدنا محمد ما بغيت لينا خمال بي بودون نيلن كنا اما غناو سيدنا محمد فلنت دا فام يوم وامي صلى الله عليه وسلم su fekkon dama da gondo ay wax bi ci mbedd Makka yi du ma nangu mu boot waa jooju ba mu tekki ni yonent boobu ñëw gannaaw ñoom setal dañ ci doon am na ko ndax moo am kii wax ni naxaaba abdullahi xaadimu rasul dunya wa uxra ismatan wa xayra rasul fa gën a sori ci suuf si foofa la ko xaadimu bind xaadim rasul kenn ñu ko tekki ci lu tëj comme maman Mariama suba bu ñu xëyee suba dinaa la topp